Bougane. dañuy fàttali xel xam nga Bougane gis nañ xam nga xam nga c'est-à-dire man parfois moom laa mooy nous opposants là c'est-à-dire parfois dañuy bàyyi ba dara am ñu bëgg a jug këf ak c'est-à-dire këf expérimental laa ko mën a tuddee. voilà c'est les faits quoi même ça les faits dañ koy poliser pourquoi parce que xam nga Seydina nañ ko wax xam nga bu fekkoon waa ji day jug di la jàppale bu dara dul xew. ñu xam ne kii dafay teel a bàyyi xel parce que nag. gis nga ku nekk xam na ne. waaw xam na ne bu gisee buy jug ànd ak dara yow pour képp ku si jug dara yow si intervenir. woo caméra def li ngay i c'est-à-dire boo xoolee da ngay xam ne ñii nii defuñu lenn lu dul seen bopp. xëy na si àll bi sax bëri dañoo xamante ne c'est-à-dire da ngay dem ànd ak ñu bëri. Ah, na ci politique mais est-ce que maanaam li def yi def di bàyyi ba dara yuuxu ñu door a ñëw. c'est-à-dire man loolu la sama. mais nag pour nekk ni Sénégal kenn rek moo moo xaar ba dara jub. Nous wax moom day moom day toog ba gis dara Sénégal ko ko à part moom gis nañu bëgg c'est parce que daa lu xew mu bëgg a wane ko. les opposants quelque part ils ont droit de faire ça puisque ñoom tooguñ seen loxo yi nga xam ne ni mooy tax ñu mën a def avons non c'est opposant. les Sénégalais n'ont pas ah, ah, le budget Sénégal du Sénégal. non pas le budget Sénégal. waaw et deuxième moom avec le président. le président à dire am nañ base si réew xam par exemple

nga génn kaso nga kaasaat ba nit ñi jël la ñëw sa kër massacre et tout ça te teew yaa ngi doon ne kaas ba tegu ci li nga xamante ne mooy présidence donc kon ko kenn daa ko la kaas mais ñëpp a gis nañ Abdoulaye Wade ci biir nguuram yàq bi ci Sénégal ay yàq wàllu kopparu xaalis Sénégal ay milliards. mais nag biir biir nguuram la Sénégal gënee neex. yéen yéen wuti jàmm ak bi non non non non d'accord ma loolu. xam nga ñu amee yenn benn infrastructure biir mais tey biir biir nguuru Abdoulaye Wade le Médina Gounass toog di souffrir pendant vingt ans yoo xamante ne plus de vingt ans ci inondation pourtant bi Macky Sall toogee inondation jóge na xam nga c'est-à-dire ko la maanaam xam nga ñoom c'est-à-dire le problème c'est

gis nañ ci Macky Sall c'est-à-dire di forcer à ce que gars yi retourné si euh, tool yi. Mm-hmm. gis nañ ko Ousmane Sonko di wax gars yi ñu retourné si tool yi gis nañ ne keneen ak keneen ñoo xam ne ñu ngi jéem a def ay investissement si tool yi pour gars yi dem na c'est-à-dire xam nañ ko. mais nag lu ci laal c'est bizarre. lu ci laal ci kaw. lu ci laal ci kaw c'est-à-dire même même même même au fond des choses. mooy mooy problème foofu nga ci laal ci kaw. au fond des choses bu affaire bi commencé ba def campagne agricole waaw. dañuy gis ni semence sax pour askan bi jot ci problème yi. c'est-à-dire benn homme politique mooy nekk ci biir dëkk ñu jox ko semence bi. bu téye ko di xool. bu am na. problème de. gars yi sànni moom moo wax mu ne ma directement mu ne ma c'est-à-dire ñun suñ semence yi ba ma demee 5 kilos lañ ko jox ki koo xam ne lu mu yor ci ay

nañ ginnaaw bi ñu li nga xamante ne mooy mosquée fële ca Tivaouane gis nañ ki nga xamante ne mooy xalif général des mourides muy Serigne Mountakha yal na yàlla yokk ay fanam guddal leeram li nga xamante ne macha allah dana a yokk leeram bi jaay Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam ñu gis moom itam yëkkati na lu toll ci cent millions déglal ko ñi nga xamante ne mooy kër euh, Cheikh Cheikh Seydina Babacar Sy ko yokk ko ci fi nga xamante ne mooy Xaaji Malick si waaye pour gën a dooleel diine islam ndax nag entre doomu aadama yi parce que moom mérité na tey ñu sang ma yaskurullah la yaskuru nas te defe naa tey moom mérité na dëgg daan ñu sang ko day wax ne julit yëpp ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ci acte bu rafet bi mu def te defe naa moom la jàngal na tey suñu ëcc politique yi ñu nga xam ne ku jëriñ la waaye naka noonu nee diine islam moom mu ngi bokk di dem ba nag la jàngatee la. émission bi passé dama am benn affaire bu ma wax ni politiciens wala ñu ko rek ci lycée yi muy. saa suñu déglu projet mooy ñoom ñu laaj ñu mën def suñ xam. waaye li ñu laaj day nekk loo xamante ni lu askan bi mën a joxe la. Mhm. te fu ñu koy dañ koy def foo xamante ni ñu koy def ñu li ñu doon laaj fii lañ ko def. loolu bu ñu ci doon bay c'est-à-dire en fait benn problème la am. Mhm. benn tamit yi tamit dafa war a nekk benn affaire boo xamante ni loolu royukaay la si. laaj bi laaj bi am solo moo tax sëñ Sidi Moustapha sëñ sëñ Moustapha Mbacke Bachir ñu koy gërëm bu baax mooy di ko sant gis nañ moom engagement bi bi bi mu am patriote bi mu teg ci table bi pour accompagner état ci gestion mu defaat ko tamit ci mosquée bi mu nekk 100 millions yoo xam ne daf koo génnee ngir jàppale ko ki nga xam ne bokk waxta si nga xam ne daal di ñeme am daal defar la ko moom yaakaar naa ni lii nag tëntal la boo xam ne dafay wan askan bi ne ñoom ñëpp benn. ku fi nekk di xooloo ngir jub wala ngay xooloo ngir maa nekk ci tarixa wala maa nekk ci tarixa bi lii dëggal na ne loolu amul benn njëriñ ndax sëñ Mountakha Mbacké Bachir li mu def nii mbokk ak ko defal. li mu def ñu nag jàngat la boo xam ne nii Sénégal yëpp war nañ see jàng. Hmm. mu nekk acte boo xam ne acte noble la. Hmm. nekk acte boo xamante ne nii ñëpp dañ ko si jaaree nag waaye moom nii la nii la nii rek la mel hmm. saa su ne boo xoolee jàmm ñi nga xam ne ni moom la si ci muxtaar doon woote. mbégte bi jàmm yooyu noonu boo xoolee moom lay continuer di ko fësal saa su ne. macha allah macha allah Seydina la même question boo xoolee tey ki nga xamante ne mooy xalifa général des mourides mu def acte bu rafet acte bu naaj jëlee ko ci kookee di rakkam waaye jëlee ko ci kookee di soppeem bañ jëmale ko ci kookee di xete waaye jëmale ko nag ci bërëb bi nga xamante ne mooy bërëbu maamam jëm muy xaaji Maalik Si bi nit ñi wootee moom it moo xam ne jàmbaaru islam la day wax wala pas-pas waaye joxe un bon exemple pour képp koo xamante ne rek da ngaa gëm Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam talent comme ni ko Abdou waxee jàngal li ñuy jàngal. bu koy tàmm waxee rek chaque instant dañuy gis ne Sénégal chaque instant kilifa diine yi dañuy jàngal. sans que wax ni ko mais seen i acte dañuy jàngal. parce que ñun ñoo fi nekk comme ma ko comme ma ko waxee ñun ñoo fi nekk di xulóo di xeetal. di métital ak yooyu di di saagante di métital mais ñoom. ñëpp ñu ngi waxtaan seen biir bi. travail ñu ngi jàng ñu ngi ñu ngi jàppalante. di liggéey di booloo seen biir. xam nga ku jël ku jël cent millions. def ko ci def ko si si si. néegu yàlla si néegu yàlla. bu politicien yi mënul. jàpp jàpp ne kii nii du bokkul ci man. moo tax ñu ko te jàpp ne man si laa bokk. dafa bokk ba pare ba pare wax ko lu te waaw non kon ñi ñuy tuddal milliards yi. ba ni ñi ñuy tuddal milliards yi ñoom dañoo defagul loolu. waaw kay. le propre te milliards yu Sénégal yëpp ci ay 1 pour cent dañ koy calculer maanaam dafa dajaloo rek seen politique ñoom ñu am ay milliards et milliards defuñu loolu. Sénégal tamit je le euh, gis naa ne saa ñu ne ñu jàppale askan wi saa directement jàppale askan wi ñu banque suñu loolu mais saa ñu waxee ñu su si ñëpp ñëw participer nga c'est bien mais si nga kilifa yi dañuy jàng chaque instant benn affaire. bu ñu bu ñuy dégg bu ñuy bu ay si ay bu ñuy bu ñuy dégg si ay coow ak ay kii ñoom dañuy noppi. Hmm. ñu ngi jàppale askan bi ñuy jëlee askan bi ñu gën a jël seen alal parce que Sénégal dafa jóg wala du carrément Sénégal nga gis kilifa diine boo xam ne ñu jël di ko jëloo ci si ay taalibe yi. Hmm, hmm, seen naam taalibe yi koy jox. mais alal bi alal bi yëpp. day delluwaat si taalibe récemment da ngay gis. waaw maanaam ñu ngi kër kër kilifa diine boo fa dem. ñu a nit ñi daal. jël si dépense sept jours nag. waaw dafa añi ñi dafa réeré. dogo dogo mala dogo mala al amin daana wax ne bu ñu ko musaanee ne keesu daara ba keesu daara bu ñu ko daan teg kees social la tudd. maanaam boo xamee koo xamante ne lekkul wala daa wopp mbaa daa feebar dafa jaadu nit jël ne bu leen ma indilee keesu daara. te dama dégg dëgg yow. waaw loolu dafa baax. Mm-hmm. dafa am ñaar ñoo xamante ne dañoo dañoo dañoo wuti nii. dafa ñëw ngir soxla kii léegi nag borom soxla moo jiitu ki war a andi mu ne comme yaa fi jiitu xaaral na xaaral mu ñëw moo ko ko ba mu ñëwee ba mu toogee tuuti la am mu ñëw siyaare ko mu jël ko tax ne ko demal muy sa dépense. ñoom noonu la ñu doon mooy Touba ci mooy jumaa ci waawoon. organisation bi mooy fépp mm-hmm. organisation boo xam ne foofu ñu ko def. pour que nag benn document chaque jour ñu jàngal nguur que ne ñoom sax ñoo ko dàkk organiser par mën a xaar parce que Touba ca kanam ak nii jumaa ji mel. yëpp boo dee seet nañ koy tegee ci transparence nañ koy tegee ci yoon parce que ñoom rek laay gis. parce que ñoom ñaar ñëpp ñuy jug di wax ne bés tel ñu ngi toog ci tel. Mm-hmm. bés tel am nañ temps bés tel am nañ temps. mais mosoo dégg mosoo dégg suñu njiiti réew yi ñu mus a am yëpp kenn juug rek wax ne ci xaaru ci Sénégal ñu ngi toll ci nii wala ñu ngi nekk ci benn projet ñu ne la jënd naa temps facture baa ngi amagul. dëgg la te sax ñu lay ñaan contrat. ay les chiffres yoo xam ne chiffres les des fois les chiffres sont bien avec. on a les fantômes. c'est les fantômes jàngal la rek. comme que yaa ngi traité sa émission bi. jàngal comme ni ko jàngal la rek jàngal nit mm. ñu. war nañu ne nii ak nii ngay demee c'est-à-dire lépp bu ñu jàppante rek. dañ ko savoir que ni gis nga bu ñu ñëwee ci wàllu kanam. ñëpp di jàpp récemment maa ngi si benn vidéo boo xam ne si benn chaîne. ah ma dégg. ah benn police boo xam ne dafay installé Touba je ne connais pas je ne maîtrise pas bien le nom. Mhm. mais genre police la boo xam ne ñii dañuy dañuy réguler di xool biir bi. Mhm. ñi nga xam ne lépp moo tax jàpp nañu mhm. ñu koy jàpp. di fa jàpp ay drogue. ay ñi nga xam ne le travail de Safinatoul Aman exactement. di fa jàpp ñi nga xam ne lépp loo xam ne dañ koy teel si dëkk bi. ni nga loolu. bu ñu ko defoon bu mi ngi a Touba bu ko defoon Touba. def ko Tivaouane. waxuma sax biir religieuse kase. def ko def ko Dakar def ko Thiès ko Diourbel def ko Saint-Louis. di nga bëgg ko pas fépp sax mais bu ñu ko def ko sur dans dans les grandes mhm. maa la wax si dix ans. Sénégal avancé. mais tant que ñu ngi defee nii rek. Moussa Ba. mais mais loolu c'est normal c'est normal ñoom ñoom ñu sant ci seen seen sëriñ si muy sëriñ bu baax. ñu mu sant ñu mu sant yoon bi tubaab ñaa xam ne mooy liñ saa di xëy loolu xëy na si taw bi bi yow sëriñ yi. maanaam c'est-à-dire yoon bi ni mu ko sampee mooy amul travail. c'est-à-dire nekk parce que voilà loolu lañ. parce que voilà saa su ne saa su ne képp koo fi teewal rek. ci loolu nga def. te loolu loolu loolu loolu metti ndax warul metti parce que ci nga mën nekk Touba ak tijaan bi nekk Touba ak Laay bi nekk Touba ak xaalis bi nekk Touba ak ñeseen bi nekk Touba ñoom ñoo nekk Kaolack ñoom ñoo nekk Dakar ñoom ñoo nekk Saint-Louis ñoom ñoo nekk Tamba li nga ku si nekk boo dégloo si ndigal kilifa boo yow kat Dakar boobu nga nekk defal lii ak lii ak lii organisé woon nii ak nii ak nii nañ nañ ko am ne mu dox kilifa boobu tamit nee na yow mi nekk Tamba defal nii ak nii ak nii il faut que nag ñoom tamit ñu c'est-à-dire xaw ma fu leen doon xaw na leen doon ñu jóg nag ne ñun léegi ñoo ñun yéen a def leen nii ak nii ak nii ak nii ak nii ba maa ne bu ñu ko defee teg ñu si yoon. Hmm. askan wi bu ñu leen déglu parce que bu coow amee bu ñu nee nopp leen ñëpp nopp bu ñu nee gars yi jug leen gars yi jug bu ñu nee def leen nii gars yi def ko donc ñoom tam bu ñu ñoom tamit war nañu mën a def leen nii def leen def leen dana exemple Touba ci kanam. Hmm. yóbbu ko géej waaye Touba ci kanam yóbbu leen ko fee lépp bu ñu ko defee. affaire bi lépp avancé. lépp ñu avancé xam naa ne lu si nekk yëpp moo xëy si am solo euh, te ñoom na sax ñoom ñoo mat bu jógee wax rek askan bi dégg la parce que xam nañ ne doxuñu si dara caaxaan te diine rek moo leen ñor te diine ko xam na nag diine islam bi mooy diineel yàlla ndax inal diine na laahil islam te yàlla na doxul ci dara ay caaxaan te bu fekkee rek aji jub aji jubbante aji defar mu baax defar mu jaaroon defar mu jaaroon waaye defaree pour jëmale ci kanam yàlla suñu borom subhanahu moom rek moo ko séddale boppam waaye noonu la ko séddale ne mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kookee nag képp ku ko bëgg roy ko sopp ko te la cofelam ci ki nga xamante ne mooy Xaaji Malick Si naka noonee ki nga xamante mooy maam borom Touba ba si maam Abdoulaye Niass ci Baye Niass ci ki nga xamante ne maam Seydina Limamou Laye bu Kunta Ndiassane ak kër kilifa diine bu ne seen àdduna yëpp dañ kaa tënkoon ci doxalin bi Seydina Omar gi nga xamante ne mooy El Hadj Omar daal doon doxee waaye kooku ñëpp xam ne ne mooy bind ba wàcce ci Seydina Ahmed Tidiane Chérif comme ki nga xamante ne ñu a koy noonu parce que réewu Sénégal ngay gis ñu am ñaari diine ñaari religion que ça soit muy islam que ça soit ñi nga xam ne christianisme parce que gis nañ même ba ñuy sax ci li nga xamante ne mooy message bu diine gisoon ne moom la christianisme defoon pour mën a joxe seen participation noonu nag ñaari nit mën nañ bokk nekk doxal ca diine mi du tee li nga xamante mooy humanisme dafa war a mun a am suñu diggante doxalin dafa war a mun a am suñu diggante ginnaaw nag yeneen i diine ñoo mën a ñëw jàpp si suñu diine islam bi ko def naa ñun ñi nga xamante dañuy namoo li tiitaroo di wax ne islam lañ bokk war nañ mën a gën a rafetal war nañ mën a yool wax mamadou hmm. di la bàyyi nga joxe sa kàddu bu mujj ginnaaw bi nga xamante ne tey ñu ngi si cappaaraw maanaam si dañ dëbb li nga xamante ne muy nekkoon suñu émission li xew tey. ñu ngi torop ci émission bi. di kontaanaat bu baax ci mbokk yi ngeen ñi nga xam ne ni mooy rajo bi. di la gërëm te naa waaye di gërëm hmm. waaye di gërëm ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel émission bi di hmm. kontaan bu baax di gërëm ñi nga xam ne ni ku ci mel ni euh, Mouhamad Lamine Gueye Mouhamad Kabir hmm. Mouhamad Touré Moustapha Gueye ñu ngi nuyu ñoom ñëpp yàlla di leen ziar di leen daje incha di euh, comme ni ko may di di euh, remercier remercier Modou aussi di remercier suñu caméraman yi suñu ndaanaan yu mag yi remercier aussi chaîne bi di ñaanal yàlla yokk Mm-hmm. yokk leen te dafa leen lépp loo xam ne ñu ko séntu. mais mm-hmm. aussi gërëm population sénégalaise bi nga xam ne ak lépp lu ñu mën a wax. Mm-hmm. je crois que mooy dëkk bi gën a neex ci monde man maanaam toujours di Sénégal bu mooy dëkk bi gën a neex ci monde. Sénégal da ngay añ da ngay reer da ngay ndékki doo liggéey doo amul liggéey loolu yëpp da nga koy def. da ngay da ngay da ndékki kenn du la xas. kenn du la saaga te yaa na jaamu yàgg uh-huh. di remercier ñëpp di remercier aussi euh, ñëpp di ñaanal sama yaay Sénégal jàmm yàgg fii te xéwal baawaan saawaan xewal baawaan saawaan très sincèrement mbégte lay doon saa ci biir 5 TV moom mi nga xamante ne mooy la télé au quotidien des Sénégalais billah wallahi saa su ne ñu fësal ko saa su ne ñu matal ko waaye di wax ne su ngeen ñu jour ñu mën a di cëppi cëppi di bouse ci plateau bi des koy sant Fall ak moom Adama di wax ne gis nga mbégte la ñun saa su ne ñu am un service boo xamante ne ay ndaw rek ñoo si nekk ay ndaw yu am pas ndaw yoo xamante ne macha allah gën li ñuy def mën li def fonk li def macha rek moom mi nga xamante ne lépp lu ko waaye ñaan mu may la ko yàlla na yàlla def yëf yi gën a kawe gën a yaatu bi jaay Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam alors noonu la ñuy sant gërëm ñi nga xamante ne ñooy waa Géejawaay waa Pikine waaye rawatina nag waa Baxdaad di leen sant bu baax muy waa axlu ba gaay yëpp di wax ne ñu ngi leen di bëggee saa su ne di gis ni ñuy toppee ki nga xamante ne muy coach Taflo waaye mënuñu wax coach Taflo lu dul dañuy wax Taflo famille que ça soit mu nekk Kër Massar que ça soit mu nekk Lagos que ça soit mu nekk Pikine ak Géejawaay pour ba ñu lim waaye waa Parcelles Assainies du ñu mës a fàtte alors noonu la ñu remercier waa lycée Seydina Limamou Laye plus ñi nga xamante ne ñooy club anglais waaw domaine bu di wax ne gis ñu ngeen ñuy toppee ñu ngi jot lépp loo xamante ne rek yéen koy gis ci li nga xamante ne mooy seen émission di leen wax ne ñun yéen lañ fi nekkal waaye askan bi leen fi nekkal de manière générale di wax ne lépp loo xamante ne day xew-xew saa su ne dinañ ñëw fii toogale ko si seen plateau li xew tey di leen jox dig daje très prochainement ci beneen numéro incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah